comme ni ñu ko waxee ñaareelu pàcc bi dañ koy jeexalee ak li nga xam ne ni moom mooy rubrique royukaay tey fàjju fas ne waxtaanee sunu maam Cheikh Anta war cee ànd ak góor gi Babacar Faye fàjju fa ay ca ñu commencé. Coro ah, ni ko waxee woon rek suñu invité euh, di disciple Cheikh Anta Diop. di mm-hmm. Babacar Faye euh, ñuy waxtaanee ci Anta Diop waxtaanam du jeex comme ni ñu koy waxee rek waaye balaa ñoo yaatal waxtaan bi nañ dem ci portrait bi nga xamante ne Moussa Sène def na ko ci Cheikh Anta Diop. d'accord bu dee pexe ak waa technique bi xanaa ñu dérouler ba ci kanam rek mm-hmm. euh, donc Cheikh euh, Anta Diop di ab savant euh, professeur Babacar fay ñu dégg la ci nga ne bu fekkoon coupe du monde wala coupe d'Afrique Cheikh Anta Diop jël na ko mën nga ñu leeral wax jooju nga xam ne wax nga ko ci amin potaxara atum mm-hmm. pour ma wax ci Cheikh Anta loolu il faut ma wax ko mm-hmm. mm, bés bu nit soxlaa loolu aussi xam ko njëriñ la ma wax la ko. Mm-hmm. Cheikh Anta euh, Coupe d'Afrique li tax ma ni Cheikh Anta ba ko jëkk a jël. Mm-hmm. Coupe du monde la jël avant Coupe d'Afrique ndax en 1974 dafa invité monde bi yëpp képp koo xam ne kii am nga xel mu set moo xam ne mii. man nga wane ne du nit ku ñuul moo njëkk nekk ci kaw suuf mu ne nañu tase keer mu def ko ñaari at yu mat mu ne Amadou Mokhtar Mbow def ko ñaari at yu mat ndax kenn bañ a ñëw naan ma ah xamoon ne lii lañuy ñuy waxtaane kon dinaa indiwaale lii ñu def ko ñaari at bi ñu fa tasee mhm. Cheikh Anta wane Afrique wane surtout aussi Sénégal ndax image yu Sénégal ci seen Anta Diop la gën a feeñ li tax ma wax loolu moo di ni réew yi ñu wër yëpp gis ngeen ne sëriñ yi ñu am fii amul benn réew bu ko am mhm. li ko waral xel a tax xel moomu a Cheikh Anta doon firndeel ci boppam mais bëggul quand ñu déyi fee ko mhm. moom mhm. mosu ko bëgg Euh, doguma la doguma euh, la sëñ Babacar yàlla bu la yàlla dog dañuy dem jëli portrait bu faatu ñëwaat ci plateau bi d'accord Cheikh Anta Diop nekk homme scientifique formateur historien anthropologue chimiste homme politique yi mi ngi juddu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weerub décembre atub 1923 ca Coytu nekk ci département bu Bambey waane it ca région bu jurbel Diourbel famem nag nekk ab aristocratique wolof moom bu mu amee ñaar fukki fan ak ñett la daal di dem Paris daal di jàngi li nga xamante ni moo di physique ak chimie waande it histoire ak science sociale nekkoon na li ko utile moom muy euh, wéyal di amal njàngam foofu ca Gaston Bachelard ak Frédéric Joliot mu adopté sax benn gis-gis boo xamante ni typiquement africain la gis boobu sax ñu bëri doon wax ni Afrique amul passé ci atub 1951 Cheikh Anta Diop nag préparé direction Marcel Griol foofu nga xamante ni fa la amee teesam ci université Paris mu doon jàng rek histoire Afrique te mu daal di nemmeeku sax ci histoire boobu ni Afrique na continent continent bu peuplé la te langue ak culture égyptienne nag nekk na loo xamante ni mënees nañ ko diffuser ci Afrique sow jant bu Cheikh Anta Diop amee doctoram en lettres ci atum am amit mention mu daal di ñëw Sénégal rek daal di jàngale nekkit maître conférence ci université bu Dakar te ñu koy wax tey jii nii sax université Cheikh Anta bu Dakar ci atum 1981 mu daal di am titre professeur ñuy fàttali rek moom li ko itteeloon rek mooy mbiru bibliothèque. teg ci atum 1970 Cheikh Anta Diop nag participer ci comité scientifique international bu dirigé ci cadre UNESCO élaboration histoire générale bu Afrique moom nag ci atum 1947 Cheikh Anta Diop daal di engagé ci mbirum politique tey dox ci indépendance su pays Afrique yëpp rawatina bu Sénégal lu mu bëggoon rek mooy ab état fédéral bu Afrique ba atum 1960 moom nag muy wéy di xeex rek indépendance su Afrique rawatina bu Sénégal te moom sax muy contribué ci ay homme politique yu bëri ci atum 1950 jëm tak 1953 mu nekk secretaire général yu étudiants yu fare ci rassemblement démocratique africain Diop nag nekk koo xamante ni débat politique nag ñu daal di koy démocratiser te moom sax mu jiite woon jamono boobu li ni mel rawatina ci bu Léopold Sédar Senghor di nekk njiitub réew mu créé moom benn parti politique bi ñu tuddee RND ci atum 1976 Cheikh naka noonu nekk doomu Massamba Sassoum ak Maguette Diop génn àdduna juróom-ñaari fan ci weeru février ci atum 1986 boobaak léegi am 36 ans. macha allah mu nekk faatu nag portrait bu am importance ci dundinu kii nga xam ne ni moom moo di euh, Cheikh Anta Diop. Mhm. voilà muy portrait boo xam ne retracé na li nga xamante ne mooy parcours Cheikh Anta Diop euh, xam naa ñu bàyyi la ci balaa ñoo àggale première question bu ñu tàmbalee woon. Mhm. Babacar euh, d'ailleurs sax foofu. ngeen baal ma parce que wax naa d'ailleurs tubaab rek laa bañ. <laughs> <laughs> dama ko bañ. te teyuma ko parce que ñoom ñëw ma ci dugal. ndax ni ñu ma bañee laa leen mën a bañee <laughs> looloo tax euh, Cheikh Anta Diop bi mu ñëwee fii en 1960 li mu njëkk a def. Hmm. créer parti ñu naan ko FNS. FNS la njëkk a créer. waaw euh, bi mu ci teg mooy BMS. Hmm. yëpp benn bi wote naag Senghor mu gañe ko législative. Hmm. ci même jour la ko dissoudre. ne benn parti waru ko mën a gañe fii. Cheikh Anta mas na gañe Senghor ci élection. ci élection boobu. histoire a ngi fi. Mhm. manes nañu ko questionner tout mhm. ndax loolu lay njëriñ. Ah, Cheikh Anta Diop bi muy ñëw en 1960 ak do doctoram boobu. Mhm. dañu bind ci ginnaaw diplôme bi ne bu mu jàngale ci université de Dakar ngir ne tubaab yi ñëw moom université de dakaar te bëgguñu mu jàngale fa. ba en 1980. Mhm. la du Diouf falu projet Anta Diop la woon. Mhm. Euh, ndax Amadou Mokhtar Mbow moo ko formé. Mhm. Amadou Diouf waaw moom Abdou moom moo ko formé donc lépp loo xam ne lii alors euh, war na ko def te Cheikh Anta Diouf du ci bokk. moo taxoon ba ñoom Amadou Aly Dieng ak euh, waa. opposition yu bari yoo xam ne ay communiste lañu woon. Mhm. bi Cheikh Anta eh, Abdou Diouf wooyee Cheikh ne kaay ñu gisee bi mu demee ñoom ñëpp dañu bañoon ba ñu génnee ne alors Cheikh Anta de wax na ak Abdou Diouf ko ku ci nekk ree. Mhm. ñu ne Cheikh Anta summi na tubéyam. noonu la ko waxee woon. waaw noonu lañu ko waxee woon. il s'est décolleté comme on dit. waaw mu ne leen déedéet Abdou Diouf moo ma woo wan ma ne ñu ni nee na fi des léegi. te war ngeen xam ne Abdou Diouf nag du suma morom. Mhm. ci benn fànn. Mhm. du ci politique. Mhm. du ci at du ci njàng. du ci xam-xam. <coughs> kon man mënuma xeex ak Abdou Diouf suma doom la li ma man ci moom. moo di ne ma xam fi mu jëm bu fekkee mën naa ko gunge ma gunge ko bu ma ko mënul gunge ma xam ne ma xaaraat. ndax. bindoon naa Senghor lettre. Mhm. ne ko autorisation dong lay ñaan. lettre mhm. boobu moom wan na ma ko. Mhm. ne may ma autorisation plage Mbour. ma samp fa hangar di manq ci géej gi. def usine fële ci Thiès relayer ko ak pipeline nga woo les six états yi formé woon. Euh, la Sénégambie bu njëkk. Mhm. nga ne leen mën naa ñu fédéré ma leen di jox courant doo leen fay dara abadan kon dinañu nangu sengoor tontuwul lettre boobu ba Abdou juuf ñëwee aussi moom la doon reprendre ak moom. Mhm. mais Abdou juuf aussi mu ngi nii di dund. bu fekkee nit war na mën a weddi loolu na ko weddi. Mhm. Mm. mu ne moom ñemewul loolu ndax tubaab yi kon la ñu waxoon Senghor moom la ñu koy wax ne kon day daal di jóge ci nguur gi. Cheikh mm. Anta ne de façon loolu mettiwul man mii maa ko ne. Mm-hmm. mais li Mbaye mu ngi fi am na alal bu baree. Dieyli Mbaye bu Louga bu Louga. Mm. dina mën a financer loolu mu ne déedéet du xaalis bu dee xaalis maa ko mën a ëppale ñëpp fii. Mm. ndax scientifique yi nekk ci àdduna yëpp man lañu àndal. Mm-hmm. lu ma leen laaj ci xaalis dinañ ma ko indi. Mm-hmm. autorisation du may tooñ. moom la jiital ci réew mi buy ne autorisé naa la rek. ma tàmbali loolu parce que bëgguma nekk chef d'état mhm. Babacar doo mës a gis ma woote chef d'état ci Sénégal ndax amuluma benn njëriñ waaye bëgg naa nag mhm. nekk ci pencum ndaw réew ma xam ne foofu dinaa mën a wax waa réew mi di dégg mhm. ndax bëgguma dara lu dul ma nekk seen baay Fall mm. ci Baye Fall boobu lay proposer signature boobu may mm. wut ne mm-hmm. ñu signal ma ko mm-hmm. bu fekkee ne toog na autorisé nañ ma dix ans après rawuñu France ma lakk li ma mos a bind yëpp. moom Cheikh Anta ma xam ne dama doon génn. kon Babacar amoon nga chance toog ak Cheikh Anta nii di waxtaan ak. toog naa ak moom de 1973. Hmm. ba 1985 tous les vendredis. ngeen toog. ñu toog fii ci dakaar mu ne ma may naa la 30 minutes ngay toog ak moom bi mu ci defee ñaari at. Hmm. ma ne ko non. léegi da nga koy dagg ci digg bi hmm. am na bopp yu rëy yu nekk ci uniwersité bi hmm. te bëgg nañu lii nga ma may may leen ko hmm. nga bàyyi quinze minutes yi ma koy jëfandikoo kon Cheikh da amuloon jot du woon ku amul jot communiqué ak moom taawam bariwul woon quoi de mën a toog di waxtaan ak yooyu comme yaa ngi ne trente minutes la la la mayoon waaw ça veut dire dafa nekkoon ci activité yu bari déedéet euh, nekk na à daal moom mooy li xam ni euh, euh, yemalewu ko woon ak lenn ndax li mu doon wut mhm. moo di lii mu def en 1974 dem ba waa àdduna bi yëpp d'accord ni nit ku ñuul moom fi jëkk ci àdduna bi mhm. te nit ku ñuul lépp lu nit xam moo la ko xamal ak lu mu mënte doon looloo ko soxaloon te wane na ko def na ko wane ko te ba léegi kenn du ko weddi kenn du ko weddi waaw donc bëggoon na lool Sénégal ndax mos na ma wax ne baabakat bu ëllëgee mhm. bul bokk mukk ci ñiy wax ni Cheikh Anta defalu fi xale yi dara bi ma noppee mu ne ma déedéet bul noppi mhm. def naa am defuma ma ne mhm. ko def nga mu ne bu ëllëgee looy wax ma ne ko li ma gis ak li ma dégg. justement li nga gis li nga dégg lan lañ ci mën a jàpp ne lii Cheikh Anta moo ko bàyyi xale benn li xam ne war na soxal ñëpp waa Sénégal. Mhm. en 1982. le 4 février 1982 ñu ku ko bëgg a vérifier vérifier la mhm. man mosuma tase Cheikh ant lu dul vendredi. mu ne ma Babacar est-ce que xam nga ne Ablaye Wade dina nekk président de la République. <laughs> man ko góor gi mais loolu nan lay demee ndax kii. kilifa yi ci réew mi bëgguñu ko. nan lay nekk président mu ne laaj ma rek du man maa tàmbale. ñi koy fal. ñi xale yi juddu mille neuf cent soixante dix. ba soixante bu ñuy am dix huit ans. Ablaye Wade daal di nekk euh, président de la république mu ne ma donc. fii ñu toll. quatre vingt deux la. d'ici trente ans dina ko nekk ba ñu remplacer ko ci trente yi te yow di nga ko fekkee. booba maa ngi ànd ak Xawsu Dieng mhm. ak euh, Paate Sey bu dëkk Mbuur mm. ñooñu ne ko ah yow dinga ko danga ne Babacar dina ko fekkee waaye ñun nag mm. mu ne déedéet yéen ñemewu ma wax seen cas mm. ñemewu wax ci suma cas waaye Babacar mii gis naa ne dina ko fekk te fitam yegg na pour ne li ma ko yóbbante mu wax ko waa réew ma ma ne ko d'accord bi ñu demee ba loolu mm-hmm. mu ne ma. kiy remplacer Ablaye Wade. Mm-hmm. moo tax sax ma tuddal la Ablaye Wade. Mm-hmm. moom Cheikh Anta. waaw ma ne ko kiy remplacer Ablaye Wade kan la mu ne koo xam ne kii la Sénégal yëpp boo leen laajoon ndax ñu ngi ko doon xaar pour fu nekk président. Mm-hmm. kenn du la ko wax mu ne moom ci boppam. boo ko laajoon du la ko wax. waaye nag yàlla daf koy indi pour mu teg Sénégal ci yoon. mais loolu kër bu mhm. ko deful. Mhm. musiba bu rëy la ci moom. ma ne ko ndax lan mu ne ma ma ne ko mais man li ma jaaxal lan lay tege Sénégal ci yoon. Mhm. mu ne teg senegal ci yoon lu tuuti la na def ay institution yoo xam ne gannaawam. kenn dootul jalgati constitution Sénégal loolu laa bëgg te moom moo ko war a def. te pourtant Macky Sall bi muy départ moo lay def. léegi nag nee na ma bu ko deful. ñetti dee ñu ngi koy xaar. ma ne ko ah bon ñetti dee de waaw nan la koy benn nit di dee ñetti dee. Mm-hmm. mu ne du di ko fekkee yow seede nga bu fekkee ne tegul Sénégal ci yoon mm-hmm. dina dem ba xam ni dee biy jiitu mooy moralement ilba mu riir moralement ma ne ko xaw ma loolu mm-hmm. wax ko ci wolof mu ne dina dem ba xam ni lépp lu mu wax xale yu tuuti ñooy wax ne day fende bu ko mm. kenn déglu day fen mm-hmm. ma ne ko benn dee la mu ne mm-hmm. deuxième dee bi moo di ne day dee politiquement ma ne ko nan lay dee politiquement mm-hmm. mu ne du di nga fekkee yow su yaay suma seede sawar naa pour di la wax bu boobaa deewu politique am day nekk ne day dem ba xam ne ñi mu àndaloon créer parti ñoom lay dàq ci biti jël ñi xam ne ñoo ko gënoon bañ mu taf ci boppam. mu ne loolu de politique la. mais moom nit la wala euh, mu ne ma mu ne ma léegi nag. ñetteeli dee bi. Uh-huh. gëm ko te ñaanal audience nga waxal ma ko lii. ne uh-huh. Cheikh Anta moo ma ko waxoon en quatre-vingt-deux ne. Uh-huh. yàlla dina la indi nga teg la ci boppu Sénégal waaye li mu la indee loolu dong nga mën a def pour mucc boo ko deful doo mucc moo di lan. moo dina nga def ay institution yoo xam ne ça sera yi kenn dootul mën a jalgati constitution Sénégal boo ko deful doo wàcc ak bakkan ci nguur eh, ma ne ko wàcc ak mu ne day dee physiquement ñetti dee yi booboo koy ñetteel boo demee nag ne ko mhm. te ñaan naa ci audience ñaari yoon mhm. au palais mhm. dañu may accordeel bu ma demee ba buntu pale ñoo ne audience yi euh, annulé nañu ko ndax Ablaye Wade mu ngay def euh, manifestation place de l'obélisque ñu annulé audience yi hmm. ma ne ah kon nag amul chance mais mais Cheikh Anta euh, Sëñ Faye Cheikh Anta bi mu lay wax loolu waaw boobu Ablaye Wade nekkul président c'est très très loin de ça waaw booba xaaj donc boobu kenn xamuloo sax ba xam Sénégal am na ko tudd Macky Sall mais mais li li doy waat mooy Cheikh bi muy wax loolu daf koo teg ci ci ci baatin wala dafa jàngal société Sénégal bi xam ni muy doxee wala. Euh, qu'est-ce que fan la ko teg société Sénégal. Mm-hmm. du mën a xam ne xale mooy remplacer Ablaye Wade. Mm. du mën a xam ne ab lay Wade. dina mm-hmm. nekk président wax ñan ñoo koy fal. oui te ñu te exactement ndaw yooyu ñoo ko fal. Mm-hmm. ñu ko ñu ko doon topp ñu ko doon topp di daw bi ñu màggee la falu. waaw waaw. moo taxoon en mille neuf cent euh, kii deux mille waa RND bëggoon ànd ak euh, kii Fall Ibrahima Fall waaw man ne leen kii Sénégal ñu ngi koy xaar du ki Cheikh waxoon ñu ànd ak ak euh, <coughs> dof boobu xam ne ngeen baal ma journaliste la woon mu ngi ci Macky Sall léegi Abdou Latif Coulibaly Abdou Latif Coulibaly eh, man mbaar kon dof laa moo ma jàngal ñu ñu ànd déedéet li mu dofe moo di fi mu jaar moo ko dofloo fi mu jaar moo ko dofloo <laughs> uh-huh. ñu dem ànd ak moom ma ne ko du kii de. Eh, Diallo Diop ne ma ah kay kii nañu ànd ak moom ma ne ko kii dina daw dafa mujjee daw. dafa bokkatul mm. absolument waaw dem ànd ak ma ne ko kon kii yëg na ne du moom. Mm. ab kii Macky sàll mii moo dem ba sunu siège. Mm. Euh, Grand Dakar. ne Diallo dama lay def directeur de cabinet. et eh, kii de campagne. Mm-hmm. Mm-hmm. Diallo ne ko noonu. man ma ko def bi mu defee ma ne mais yow moo parti bi parti bi Cheikh ant moo ko moom liwuma dénk loolu la gën a gëm mhm. candidat yi ma gis yëpp kii laa ci xamul mhm. te kii moo ci gën a tuuti mhm. waa lu tax nga du moyu ko man de moom laay wateel ku mu neex nag wateel keneen Cheikh ant lu mu wax téere la ci man te gëm naa ne du mësa fànqu day nekk bi ñu demee premier tour mu génn ma ne ko lu mu la waxoon moom da kii la Cheikh Anta doon waaw parce que newoon na trente ans yi du ñu ko génn kooku ñëw mais on est en oui deux mille la ñu muy trente ans net quatre-vingt-deux ba deux mille douze trente ans net Macky falu man na ko yàlla xam na ni kii mooy falu moo fàllu man li ma gën a jaaxal ci wax ji mooy di euh, euh, Cheikh Anta wax euh, ne président bi remplacé Macky Sall bi remplacé Ablaye Wade fii ak xale lay doon mais man li ma gën a jaaxal mooy fii ak fii da war a teg Sénégal te dama gis ne Macky Sall en 2012 toute sa campagne ci loolu la ko teg institution yu dëgër restaurer la dignité de l'État euh, la vertu euh, le la patrie avant le le, le parti yooyu rek loolu wax ko deful même même en 2016 bi muy woote constitution ouais. c'est lui-même qui utilise les mots bi nga wax sànq je vais verrouiller la constitution très waaye dafa am bés mu wax dara moo jë keroog laa ko bàyyi moom Macky moom Macky Sall constitution mhm. du bible waaw waaw ah. yéen ñii toog. Mhm. loolu dëgg la am du dëgg. du bible du coran. waaw waaw du bible. du waaw du bible de. du coran du coran de. ah man ci man nag coran la. man de jàppe ma ko noonu. ah coran noonu la ko defaree yéen tamit. Mhm. kuréel ay waxin yoo xam ni. ña ko waxoon tey bu ñu toogoon dinañ ne Babacar Faye lii mu la wax loolu la. Mhm. ne lii moo ñu tànk mooy sunu charte. ñun ñi nekk musulman. lii mooy sunu charte comme li Sidi Lamine Niass du soppeeku ba mukk. waaw mooy verrouillé. mooy verrouillé du soppeeku ba mukk. waaw mais xam nga nag. oui Coran euh, du soppeeku. ak euh, du kii loolu mu ngi aaju ci nit ñi de moo tax constitution nekk bible. nekk cohérent parce que ci nit ñi la aaju hmm. bés bu ñu ko vérifier yeneen ni jamono ñooy ñëw hmm. ay nit toog na il faut ñu soppi ko ndax Coran ak Bible aussi dafa am lu ñu fi fekk mais du ne ceer fii la ko fekk mu ngi fi ba léegi mooy téere bi gën a yàgg ci àdduna bi te mu nekk téere boo xam ne bii yàlla dong la doon wax ci biir te ku xam yàlla rek foofu nga ko xamee mais est-ce que kenn tuddati na ko tubaab yi ne le livre des morts mel ni noonu la tudd yooyu ñun nit ñu ñuul ñoo war a taxaw wane ne yàlla ni mu ñu defe juumul mhm. yàlla juumul ni mu ñu defaree du juum aada yi mu ñu jox bu ku ne baaxul rek gëmoo yàlla. Mhm. loolu maa ko Babacar Faye mhm. doon prôné li nga xamante ne mooy made in Africa made in Sénégal. waaw euh, parce que problème bu canal bi nekkoon euh, Kër Momar Sarr ba ndox ñàkk ne nañ amoon na ay yoo xamante ne waxoon na ko ci ne mën nañoo saafara yu bari yoo xamante ne si réew mi lay jóge sans ñu soxla apport beneen lu jóge bitim réew. daanaka mooy li ma la wax sànq ne autorisation bi mu doon woot xam nga. Mhm. dex gi dafa tuuti par rapport géej gi mën nga ko def ndox mu neex bu baax a baax ba ndoxu dex bi du ko gën ci benn mooy bi Macky doon wax absolument hmm. kooku Cheikh ant moo ko doon defal boppam fii te di ci génne tous les dérivés du pétrole ci li mu ma wax hmm. doon na ko ci génne ak lu weesu loolu te du tee ñu am courant bu doy boo xam ne bii dañu ci sedd les six états yi formé woon la Sénégambie bu njëkk te ñu fédéré moom loolu la doon jënde fédération sous région bi ne bu ñu amee kàttan boo xam ne bii ku nekk di ci def li la neex te dootul jeex xanaa kay kaay ñu ànd di ko nangu hmm. kon loolu dex googu teqatal dex gi yomboon na d'accord te yàlla daf ñu ko mës a defal hmm. ci Égypte ba fii xam nga li xamul waa senegaal xamuñu mm-hmm. ne wolof séeréer pulaar joola mm-hmm. ñoo nekkoon Égypte ah oui Égypte la bu ñu nii ñu àndi nii ñëw Sénégal mm-hmm. moo tax nag senegaal ñu bari boo leen laajee lu tax euh, melu ñu yeneen réew yi dañuy jaaxle ñun fu ñuy jafandu ne sëriñ si la déedéet du benn sëriñ mm. cousinage bi nekk ci ñun ban sëriñ a ko fi def. Hmm. du benn. Hmm. fi lañu ko fekk. Hmm. mooy El Hadj Malick mooy sëñ cousin yi ñu nekk sunu diggante ne Diouf fay euh, am na avant ñoom Ngom ak yooyu. fa ñu jóge la jóge. Égypte lañ ko jëlee daale ko. le livre li ñuy tudd livre de morts muy Médina Thier. am naa ko boo koy lire. man mi nekk saafeen dama ciy daal di retrouver wu facilement ki nekk joola bu koy liir da ci moo taxoon Cheikh Anta ba mu demee ba tubaab yi nag da ngay def égyptologie hmm. bi mu tàmbalee mu ne lii dee du muur muuraake la ndax wolof ba ma bàyyi ci suma dëkk moom laay liir nii Mm-hmm. kon xam lii mm. dina ma yomb lool te moo taxit mu raw ci ñëpp ci wàllu égyptologie mm. mm-hmm. Babacar euh, Babacar fay ay euh, plus de trente ans euh, wala boog 30 ans xaw ma 26 ñaata at la bu ñu décédé léegi 36 ans. 36 ans après le décès de Cheikh soo gisee ndaw yi. généralement ñu leen di woowee ay activistes yu demee noonu. nga gis ne de plus en plus. la langue nationale. waaw moom la ñuy utiliser ñoom. bu leer d'ailleurs boo leen invité ci émission tubaab sax duñu ci sawar. bu ñuy bind wolof la ñuy bind ju leer. waaw qu'est-ce que ça vous yow sa bopp yow mi nekkoon ak Cheikh Anta. mbégte parce que daf ma ne woon. Mm-hmm. Babacar ci ci même jour bi. Mm-hmm. ne ma Babacar kontaan ngeen de ne ko ndax lan mu ne école yi dooy dégg ñu naan xale yi jàng na ba surmené. Mm-hmm. ma ne ko waaw mu ne jeex na. c'est terminé. ma ne ko hmm. ndax lan mu ne yàlla dafa defar ay ndaw yu bees yuy ñëw yéen a leen di jur. ñenn hmm. ñi peut-être seen rakk la ñuy doon. Hmm. du ñu surmené mais mën nañu jàng lépp lu ñu leen jàngal bu leen ragal leen jàngal dara. loolu dëgg la mën a jël lépp. loolu dëgg la. koy weesu na dëgg. ndax xale yu deux ans léegi. waaw la gën a aay ci portable yi. maa ngi koy fu ma ko doon waxee bëri gi am na ma toog laa ci benn plateau. di ko eh, eh. waaw. te yooyu yëpp Cheikh Anta euh, wax na ko. ngir jeexal rek. Euh, hmm. euh, mu wan man ni. Hmm. Hmm. est-ce jox nañ gëdd. gëdd bu doy Cheikh Anta Diop ginnaaw bañ ko tuddee. waa Sénégal waa Sénégal dañu iñaan <laughs> Sénégal iñaan la ñu def. Ah, bëgguñu ku baax dañu bëggul ku baax. te Cheikh Anta ku baax la. ñooñu ñan la ñan la war a doon. ah xanaa xanaa ñun ñi bokkul woon langue politique ak yooyu. ñooñu euh, ah déedéet ñun ñëpp a ñaan ci ante Anta Diop. lu tax ndax kaay nga bëgg sa bopp nga ne du ma bëgg suma bopp. ni ñu ne li ma jàmbur yi wax ne noonu laa nekk moom moo ma gënal. loolu ak nan la bu dul dof ak añaan la. di roy Machiavel ak Rousseau gi demee noonu. alors que Cheikh Anta wax ngeen fii léegi ne dañu doon ree Ahmed Aïdara parce que dafa làkk euh, tubaab yu jubul mais luy tubaab yu jub tubaab yu jub amul sax dafa amul parce que tubaab amul lenn loo xam ne lii ñoom ñoo ko fer ñoo ko créer maanaam quoi amul hmm. ku ko xam rek nag ma ko wax ne lii tubaab moo ko jëkk def ci àdduna amul ci lépp ndax bu ñu vérifier histoire hmm. sunu maam yi am nañu xereñte di bind hmm. armeel yi nekk Égypte yëpp ay bind la fees del del del del scientifique philosophique et mais boo ko mënee jàng euh, rawoo mm-hmm. boo ko mënul jàng nag doo xam dara. Mm-hmm. suñu ñun amaguñu gouvernement. <laughs> léegi léegi ci ci ci loolu. Ah. amaguñu ko ndi ndaxte. Mm. Senghor tubaab yee ko fal. Uh-huh. Ablaye Wade. Senghor a ko fal mhm. Abdou Diouf Abdou Diouf a ko fal Ablaye Wade ak eh, eh, kii eh, Abdou Diouf yëpp mhm. Senghor a leen fal mhm. euh, en 1980 Cheikh Anta daf ma ne xoolal li Senghor di def di ko gis mu yëkkati Ablaye Wade xam nga lu tax ma ne ko déedéet hmm. mu ne ñoo bokk camp ma ne ko lan mooy seen camp mu ne droite ak gauche waaye gauche moo gën a minable mooy fi Senghor nekk mhm. mu ne ñooy les plus minables waaye nag ñun Afrique dañu ñuy nax naan ñu ñun ñëpp a yem mu ne waaye bés bu Afrique demee benn ah sunu yem yem yëpp nag am nañu xel bu ëpp seen bos walla bu tollook seen bos mhm. ñoom ñaar ñooñu dañuy liggéeyu pour xeex loolu ñuy jéem a def. te ci ñu ngi ci fi mu nekk ci curiosité comme président Macky Sall mën nañ ne fii ak 2024 dans deux ans day dem est-ce que moom euh, sunu maam waxoon na kan moo ko war a remplacer est-ce que jotoon na la ci wax dara ki ko war a remplacer nu muy mel ak nan la non bu deful bu deful li sunu maam wax. Hmm. du dem fenn day dem alaaxira hmm. loolu gëm naa ko bu baax a dama taseek moom en 2017 fële ceytu man maa créé marche Dakar ceytu waaw maa ko def en 87 mhm. mhm. man na Sénégal xamuñu Cheikh Anta man xam naa ko dinaa doxe buntu université mhm. ba ceytu ba ceytu aller du ma ko def aller mais aller et laa koy def pour que au moins nit ñi man ma laaj lu tax mu jaral ma loolu ndax ma wan leen kii mooy kan Mm-hmm. fi ñu ko teg paase na fu lu baree baree baree baree bari. léegi nga wax Moustapha Diakhaté lan. maa ne ko Moustapha mu ne ah maa ne ko Macky sa euh, kii euh, Cheikh lii la waxoon lii ma nettali sànq nii. Mm-hmm. Mm-hmm. mu ne ma déy ma ma déy ko ba pare mu daal di génn carte visite mu ne ma fekk ma assemblée dinaa la yóbbu ba nga toog ak Macky Sall. ma ne ko ngir yàlla boo ma yóbboo ba ci Macky Sall. ñooñu muy jox paas man bokkuma ci man kenn du ma jox paas. <laughs> waaw mën naa ko seede démb rek. ndax <laughs> ñu wax fi mu soree ngay wax paas mu ne dara parce que man Cheikh Anta Diop laay wax digal la mhm. moo ma ko sant te waxoon na ne bu ma ko defu tooñ ko. kon vraiment amoon na amoon na solo bu baax a baax. waxtu bi moo ñu bi ñu cërale woon moo ñu daal di xoj dafa daal di jeex tàkk faatu. amoon na ñu mbégte bu baax a baax góor gi baabakar fay dalal la fii ci plateau bu Petit Déj waaye tam. am na solo bu baax waaw mën naa ko yóbbu. <laughs> teraanga la bàyyi la nga tàggatoo ak ak askan bi la doon seetaan. maa ngi tàggu waa afrig yépp mhm. euh, li ci gën a jege nag mooy waa senegaal mhm. maa ngi leen di ñaan ñu dellu ci seeni bopp. Mhm. yàlla juumul ni mu ñu defaree. ni mu ñu defaree dara gënu ko. diine yëpp boo demee dañu la naan euh, Muhammadu ci pour ñun ñi xam ne musulman lañu. Mm-hmm. bëgg naa nit ñi xam ne Muhammadu nit la moo tudd noonu en arabe sax noonu la tudd. Mm-hmm. nit li tax miim xadam dellu miim deel bi nekk ci ñun. Mm-hmm. du njuumte ci yàlla moo ko tey. ku man le contraire defal waaye <laughs> nañu xam ni. aada bi mu ñu jox benn gënu ko mm-hmm. waxin bi mu ñu jox benn gënu ko bu ñu yaakaar ne am na wax yu gën sunuy wax mm-hmm. loolu tubaab bi moo ko waxoon ne làkkam bi moo mën a ëmb science mais ba tey waxam mm-hmm. mënul ëmb science parce que fe euh, alphabet euh, bi nekk ci sunuy làkk ñoo ëpp yu yu tubaab kon ñoo ko gën a riche. dëgg nañu ci dellu jàng ko. dëgg ñu nekk wolof nañu jàng wolof ñu nekk pulaar nañu jàng polaar. Mm. bu ñu neexee nag wolof bi gën a yomb ñu dajaloo jël ko. dafa yomb. incha allah mooy véhiculer boppam kenn véhiculer ko amul kenn ku mën a wax ne maay véhiculer. wolof waaye dominé nañu ba pare tubaab parce que la dominé wu ñu déedéet àdduna kañ lay jeex déet waxtu bi loolu lu li nga wax lu garaaw la ndax day mel ni gëm naa ni mm-hmm. sunu làkk yi uh-huh. du ma ci tànnagum benn waaye xam naa bi xam ne mooy dominé ji monde bi ëllëg li mu àndal mm-hmm. moo di ne mm-hmm. euh, sunu philosophie bi xam ne yàlla jox nañu ko muy mbokkoo mooy mooy boole ji ah, ah. àdduna bi ëllëg te tubaab yi ñëw nañu jërëjëf Faye